L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant. ñolan ko dugu ko nangu ñolan ko dugu ko nangu ño bañ dugu ko nangu ño bañ dugu ko nangu dugu amu fi kaddu mbokki senegal na ngeen moytu na ngeen moytu nit ñi man nga liggéey ba retraité ba ngay liggéey nga def tooxi duuna yaa ngi doxan jabaru jaamur yaa ngi sàcc randal yaa ngi biiral yaa ngi siif nga dem ba retraité wut course bu gudd bu ñuul sol koppati di xëccoo min bar ak sëriñ yi war nañ ko bañ dañ koy bañ loolu dañ koy bañ min bar dafa am boroom min bar dafa am boroom képp ku def tooxil duuna bi ngay liggéey sa place nekkul ci min bar alors alors maa ngi yëgal maa ngi yëgal maa ngi yëgal bàyyi li ne ko jëre yooyu yooyu bàyyi ni ite te mang len di yegal ni man len leen da dinaa marlo ñom barke Mouhamadou Rasulullah ci mbir mi maa ngi len di yegal ni mang len di bàyyi len ma wax sama xol fa tang fokk ma wax dama ne dama ne ku rak ragal yalla do profito ñuy organiser ñu ubi neegu yalla nga fay fekk taaxuraan dafa fekk Ndaka Ndiaye ak Seynabou dafa fekk Ali wango leen wango wangaani dafa fecc armatam ak yooyu kooku ku ragal yàlla du ko def nañu moytu seen suñu réew nañu moytu il ne faut pas abat l'obscurantisme abat l'obscurantisme duñu nangu ñu jàpp jàpp askan askanu Sénégal di naxal xelam duñ ko mën sa waay duñ ko nangu maa ngi yëgal préfet Dakar di yëgal préfet Pikine di yëgal préfet Tëngéej waaye surtout surtout préfet wu Guédiawaye maa ngi yëgal préfet Guédiawaye ni saay saay yooyu bés bu ñu génnee ni dañuy nëxal xelu askan bi ñun dinañu jàkkaarloog ñoom dinañu jàmbaarloog ñoom te billaahi wallaahi watallaahi bés bu ñu jàkkaar jàmbaarloog ñoom lépp lu tooy te xasaw ci ñoom li jóge ñoo lànk ñoo bañ laa wax ñoo lànk ñoo bañ duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba li des ba ñu continuer incha allah teewaay fii tey li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk yëpp muy yokkute courant bi nga xam ne képp koo xam ne kii tey yaa ngi yewoo ci yi mi dana la jaaxal dana la metti ndax ñun dañoo nekk ci boo xam ne jamonoy sedd buñ ci tolloo wantilo yi day fay kilim yi fay kon jamono jooju facture yi dafa war a wàcc waaye ñu dem ba jamonoy sedd wantilo yi fay kilim yi fay ñu ne facture yi day yéeg loolu xel mënu koo nangu ñaareel ba imaam yi nekk ci jàkka yi di jiite mbooloo yi jàkk boo dem bu fekk sedd bi ñëw wantilo yi du daw te am na ci jàkk yoo xam ne am nañ ay ay morgue yoo xam ne dañ koy denc ay nit ñu génn àdduna kon danañ taal clim bi kon jàpp leen ne bu ngeen yokkee courant bi jàkk yi dinañ ko yëg te jàkk yi am na ci yoo xam ne morgue moo fa nit ñu faatu lañ fay denc bàyyi leen xel courant bi ngeen di yokk ñu nit ku faatu ñu tëdd taalal ku clim ngeen yokk courant bi kenn ku ne da nga faatu da nga tëdd courant bi daal li ñuy ñaan mooy ñu wàññi ko ndax yokk gi daal nekk na loo xam ne lu métti la ci askan wi te arrangé wul kenn ñaareel bi maa ngi laaj question boo xam ne mosuma dégg ku ma ci tontu dégg naa ne dañoo soxla fukki milliards ak benn waa man li may laaj mooy ñun ñuy fey courant weer wu nekk lan la Senelec di récupérer ci nit ñi fay courant ci facture yi ñaata la nañ ñu ko wax ñu dégg ñu def calcul mi ñu xool ba xam est-ce ñu ngi def ci participation wala defuñu ko kon daal ñi ngi ñaan bu fekkee ne kilifa ak ñi topp ci bi nañ ko wàññi nañ ko wañi way buñ ko yok nañ ko wañi buñ ko yok loolu lañ leen di ñaan té loolu moy dimbalé askan bi benen bi ci sama ndox mi danaa ci wax ndox mi kenn jegaanewu ko fi la nek ci réew mi asaman bi taw ñu am dex kon ndox mi itam dañu bëggoon mu ko ndox mi cher na lool courant ak ndox mënul ñak ci nit ndax mo yor dundu doomu adama xale yi jàng dañoo taal ay lamp kon bu courant coupé xale yi duñ jang ñi jang alxuraan dañu wara taal lamp bu fi daara yi duñ jang bu fas yi seeree dana métti ci daara yi dana métti ci jàkk yi dana métti ci école yi dana métti ci ñëpp kon courant bi na wàññeeku lañ leen di ñaan loolu la askan wi bëgg te loolu lañ sàkku ci ñoom nañ ñu ko defal courant bi ak ndox bi nañ ko wàññi waaye yokku ci période jamonoy sedd métti na ndax jamonoy sedd ci lañ daan noppalu ci la fakk yi wàññeeku kon ñu ngi leen di ñaan bu ñu yokk courant bi kon loolu mooy sama teewaay tey sama yëg-yëg ak askan wi yëpp dañu ñu daan def ci Senelec prix prix bi bañ yokku économie boobu la bëgg yëkëti yobbu ko ci Allah bi def fa courant fayeeku ñi nga xamné ne ñoo nekk Ndakaaru walla dans les villes pour que ñu mëna doxal seeni politique ñaari yëf dakk na ko sénégalais yi xam nañ nooteel bii nekk ci manque de patriotisme économique tey jii les multinationales teggi nañ leen impôt li ñu teggi ci impôt ci multinationale bi mu ngi ëpp cent milliards kon toll na fukki yoon li ñuy laaj pour ñu yóbbu ko ci àll ba kon balaa ñuy noot les industriels sénégalais sénégalaises

dañuy développer courant l'énergie propre tey jii ku yor politique cohérente les fondamentaux de l'économie dans l'énergie laaj na ñun ñi nga xam ne yo yàlla loolu la ñu may ñu exploité ko bu yàggul lañu gis ne am nañu pétrole am nañu gaz am nañu lépp gis nga bu ñuy xaar lépp ci pétrole ak gaz pour dugal ko lépp ci courant dinañu mel ni Nigéria dinañu mel ni Gabon ñoo ñu njëkk am ga pétrole ak gaz mais dañ ko dugal ci lakk ko mu mu ba léegi doo dootuñu sentir le pétrole et le gaz. mais jant baa ngi nii leer nañ ñun am nañu li yeneen réew yi dugal yi nga xam ne ñoom ñoo soxla gaz gasoil ñoom ñoo soxla gaz pour am courant ñun yàlla daf ñu may naaj yàlla daf ñu may. Non, pourquoi ne pas développer les énergies éoliennes pourquoi ne pas développer les énergies les énergies les énergies propres les énergies solaires Le ci Allah ba nous ñu ko courant bi soxla louer ay bateaux nga centaines ak centaines de milliards dama ne nooteel bi dafa doy jeunesse bi ma jox statistique simplement une industrie qui paie 10 millions par mois de courant avec 10% l'industriel va payer 1 million 1 million pendant un an ça fait 10 millions embauché un industriel boobu tere de nous à hauteur de 200 000 francs minimum 5 chaque fois que l'industriel a dépensé un million de plus en à un jeune le recrutement d'un jeune c'est pourquoi je m'adresse à la jeunesse on peut utiliser d'autres moyens de substitution pour pouvoir faire leur politique énergétique dans les dans les villages et dans les communautés rurales il ne faut pas qu'on trompe le peuple on ne peut plus tromper le peuple le peuple s'est réveillé le peuple luttera jusqu'à la fin pour qu'il n'y aurait pas de développement. je saluer euh, organisation saluer parce que man vous moi placé pour soutenir Niolane c'est parce que c'est li ñuy revendiquer ak c'est légitime mais le mot bëggoon euh, le conflit nous la lutte et ñi fi à c'est pas une lutte sectorielle parce que dans toute l'Afrique les gens sont en train de lutter pour un monde meilleur pour le noir africain Nous nous le donc Sénégal le gouvernement il faut que nous fondamentaux parce que nous nous, nous, bi ba nous, dem nga nous, notre lutte doit être globale nous, avant l'indépendance nous, y a siècles Nous nous, nous, notre mais entreprise il y a plus de 10 le pétrole là génnagul deful dara c'est c'est ko ba pare ñun ñu topp ci di wax le pétrole le gaz le zircon etc. mais jusqu'à quand le phosphate mais l'or combien d'années on l'a exploité amuñu un franc et personne n'a rien dit donc moi je vous demande c'est chers concitoyens la France dort. nous ne luttons pas simplement contre la France mais tous les pays de race blanche qui exploitent l'Afrique tout le monde sait actuellement que l'Afrique est exploitée ils, euh, affichent des stratégies l'écho a un exemple je soutiens mes deux frères mais il faudrait que la nation toute entière s'y mette. Nous avons une lutte à long terme. Il est inconcevable de dire aujourd'hui que tout va s'arrêter, que les jeunes vont travailler, que l'éducation sera performante. Mais non, il y a la présence des impérialistes depuis des siècles. Donc il nous faut bah, non violence. Moi, je me réclame non violence. J'ai créé un mouvement pour la Renaissance africaine se finit dans le temps, d'ici 35 ans, 40 ans, et dans l'espace, pour instaurer d'Afrique. Il faut que nous soyons éveillés et conscients. Il nous faut lutter. Mais ceci est une première. Je les encourage. Parce que c'est la voie qui va nous amener à notre indépendance, à notre liberté. Tant que nous ne serons pas libres, nous ne pourrons pas élaborer des politiques, nous ne pourrons pas élaborer des stratégies, nous ne pourrons pas choisir nos partenaires à nous donnez-moi 10 milliards, que de construire un moteur, donnez-moi 10 milliards. Dans 10 ans, tous les jeunes vont travailler. On est là à se dire, l'éducation ne marche pas, la santé ne marche pas, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand Et le courant là, on a un bateau qu'on a lieu ici. Combien d'argent et, ces projets bidons là pour nous implante, nous ne nous, nous ne vivons pas. Et vous c'est mieux, va jusque Touba. Je connais ce qui se passe à Touba. Sortez d'ici, allez vers l'intérieur du pays. Vous verrez la misère des gens, vous verrez la famine. Mais là, ça va quand même, l'argent c'est Mais allez à l'intérieur du pays. Donc quand vous pensez, pensez à ceux qui sont en dehors du Sahel. Il y a la misère au Sénégal, les gens ne travaillent pas. L'éducation, c'est zéro. Comment voulez-vous former les jeunes sans des entreprises pour, l'application des connaissances. Euh, je vous encourage. Mais je veux que la population sache que notre lutte-là, ce n'est pas une lutte euh, à court terme, mais une lutte à long terme. Mais nous allons nous en sortir. Demain, l'Afrique gouvernera le monde. Ça, je vous l'ai dit. Je l'ai écrit dans mon livre Le cri du cœur il y a 20 ans. Et tous les problèmes que nous avons actuellement, je les ai mentionnés il y a 20 ans. Je suis en avance de 20 ans sur mes contemporains. Donc luttons mes chers amis, mais de manière réfléchie. Je vous remercie et je vous encourage.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 123 86 56. Adresse email gmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.